Seydina Limaamu moo ko jox am na loo xamante ni Seydina Aïssa moo ko jox am na loo xamante ni maanaam moom ni ma doon wëree nag àdduna sama yëf la du yëfu Seydina Aïssa du yëfu Seydina Limaamu ay mayam la doxee boobu boobu li ñu ko ñaanal yàlla na leen dalal. amiin incha allah yaakaar naa ni euh, ñëpp xam na ni waxtu bi teg njëriñ fi may tëjee mooy Ismaïla ma lay wax. diggante yonent yàlla Muusaa ak diggante Baay Laay ak Demba Yemba Demba Yemba dari fa mu toog dina ñëw saw Yoof Baay Laay li muy bu fekkee nu dëkk dinaa ko tas mbooloo mi lay Baay Laay fa mu toog mu ni mag Demba Yemba nee na dina ñëw tas sama mbooloo jëlee ma fi ma nga toog Yoof ma nga ma nga gànjool Yemba jugee gànjool dem Ndar ci kër yóbbaale juróom fukk góor bi mu waxtaan ak soxnaam soxnaam dolli ko yóbbal joxal ko juróom fukki góor muy téeméer mu ëw ko doom ba takk ko génn bi mu xëyee amee na cangaari janaba waaye xam nga ni buñ sangu janaba saxaar gi dina ko raw sanguwul janaba mu dem jël saxaar bàyyi laay ba mu toog mu ni dem ma yëmba soxnaam jox na ko nangam amee na sa daari janaba jël na sa xaalis ñi mag ñi mu toogal tugal heure telle demal boo demee wagon nangam mi ngi sol nangam nangam boo demee ngeen jox ko fasu ñaaru góor gi ni ko bàyyi laay moo wax nga war ko mag ñi biñ àndee sàmba kura ca la bokk ay moom la yëm yoon ah. ba ñu ñëwee kon def wagon yi leen bàyyi laay wax ñu ñëw taxaw ne ñu ne ko démb yàlla moo ko jiite ku leen sama tur ñu ne ko bàyyi daal dee nga war nga war ki nga ñëw andi si walis bi wala tiite war jox mag ñi walis bi ñuy dem bi ñuy dox ba ci yàgg mu fàttaliku ni sanguwul janaba mu ne ñim àndal jiitu ma ma jaar ci géej gi sangu fa janaba soog a àgg ñëw dugg ci ndox bi summeeku summi ndogal bi yëpp teg. sangu solaat ay yéreem fàtte fa ndombal ñëw àndaat ak gars yi man ñeneen bi mu ñëwee ba jub say say dinaa li mu am bàyyi suuf si la door laa ilaaha illallah mu jugee ci fas bi yërëmal kii yërëmal kii bu ñu leen du jub mukk fekk fekk jëlul bakkanam teg ko ci sama ñaari baaraam yi bi mu wëree wër ba fóon ñaari baaraam yi bàyyi laay alayhi salaatu wasalaam kii la bàyyi laa kaara gi bëndeel ko ko mu daal di kat mu ne ko yow yaa ngi woon da ngay ñëw tas sama woote ba ngay jugee nangam nga jaaree géej di sangu ana su yóbbal téeméeri nguur da nga koy àndaale pour yóbbal sa waay xoolal xoolal liggéey gisul dee rek dem bi fàtte nga ko ca tefes bàyyi laa génn ndongo bi di ko am. kwe bo asori. Nwa agam, soalnya kenn mu jëli ko chaise ba bàyyi laa yónni kenn ni ko demal di diw demal fàtte na doom mbaam comme ni dem njëli ndonga gi ñëw jox ko bàyyi laay dem nga yóbbee sama ex ñu ko bàyyi laay mu ne ko aslan jox naa sama bopp mu bokk bu ñu ko taawee mayoon gis nga mu'jiza bu yonent def xeeti mujjizaat yëpp Baye Laye def na yëpp ba def ko keneen def am na mag moo xamante ne nii Abdoulaye John maa ngi koy di tari keroog daayira Baye Laye dafa julli suba génn génn ci jàkka ji toog ak mag ñi wër ko mu ne Abdoulaye John mu ni ko laay mu ni ko demal jël ma sama kurus dem bi mu ñëwee ci kër gi fekk Baye Laye kurus gi naan nii xanaa jombi na bu dawaat ñëwaat ci jàngat yi fekk bàyyi ko ci boole kurus gi naan nii xanaa gën naa jombi bàyyi ci boole nag gën a dem déedéet ma kurus mu dawaat ñëwaat ci kër ci mbooloo mi fekkaat bàyyi laa yor kurus bàyyi ni ko waaye sama kurus nit ñoo mu ne ko waaye bàyyi laa yor kurus ci ay sa lool boobu sës ko ñu mag ñi mag yéen a da ngeen maa gis ma jógee fii jàpp sama kër wax ñu ko déedéet moo tax bàyyi laay ay mu def kenn xamul mu doon ba kon tubaab bi di jël si ba ko tubaab ñu fekk ci loxo bu fay xam nga yàlla buy def ay kéemtaanam dafa da ciy boole ay parce que duñ duñ taalee sàkkeel bi bàyyi laay ci loxo bi laa ilaaha illa allah mu fay ñu génn pistolet ñu ne xanaa nopp moo gën a yomb rey. bi sole bi takku xam nga bu doon jamono ñu naan dafa tul kër bàyyi diw boo fa demee day dafa tul bi sole dama koy dóor man gis naa ginaar bu mu teg dóor bi sole bi takku gars yi dañ ah bàyyi laay xam naa daa am lu mu takkoon rek xam nga gars yi fu ngeen rek jaar mais la gën a yéeme ñu seere ko mu ni laa ilaha illallah xanaa loolu kenn du ko tudd seen moom xanaa buñ takki seen dañuy laa ilaha illallah mu deñ amul fenn moo tax yàlla da lay jox lépp ba kii wet du am fenn fenn fenn fu jaar قل كوكو دي إما وقر جيب لي مخار باخي جين مقدوس جيد نوي بقيم توي نتي وقت جيد جنيخو بايدا يكون وقت أي جات يارم كل فيتو وايدك جيد جنال يالا مفك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ييكو ليكو دمال منين ميسيون في تساو ليكو جرال لولو كوني ورغا بوتي دي نخول لولو بوتي تولو parce que jigéen jamono ñu ñu jaxasoo bay laay li bari bari may am na lu andi. li mu andi nag dañ ci góorgóorlu. bay laay nee na wala takuunu min al-gaafiliina fi taa'ati llaahi wa rasuulihi bàyyi laay nee na bu leen sàggan mukk al-gafla mooy ku sàggan mooy ku yëgul li xew. parce que tey bu ñu la lay opéré bu ñu la bu ñu la lay takk sa loxo da lay péki pikiir pour que bañ yëg métti loolu mooy gafla am na ñoo xam te ne yëguñu li ci biir bi. ixtalaba innaas asxaabahum wa hum fii gaflatin mu'riduun bàyyi daal ne bu leen bokk ñi sàggan ñu ne ko loo ñu digal mu ni fa innal ibaada xarsu kullu xalq bàyyi daal nee na jaamu yàlla mooy cëru bépp ku yàlla bind loolu mooy sa cër yàlla nee na wa maa xalaqtu jinna wal insa illa liya'buduun yàlla nee na bindu moo ñu def jinne lu dul di jaamu gis nga li tax yàlla wàcc yonent yi ak li muy bari wàcc téere yi tawraat injiil zabur wàcc téere yooyu yëpp nee na dara taxul lu dul ñu jaamu kon bu ko di jaamuwul yaa ngi nax sa bopp ku jaamuwul yàlla yaa ngi nax sa bopp bay reer moo ko taxoon ñu ñëw pour ñu jaamu yàlla duumu alal xusuu'i wal xuduu' na ngeen jaamu yàlla ñaar la jaamu yàlla moom ay cër moo koy def comme julli comme woor ak jaamu yàlla xolo koy def al ibaada al qalbiya mooy tawakkul raja yooyu yëpp bàyyi daa na maa ngi leen ciy nemmeeku di ci xool samay taal ba xam ñu ngi ci am déet kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax nanu bàyyi xel ci li bañ a bokk ci nga xam te ni am na da leen a këf am na ku ñëw sama kër fan yii yàggul ni ma sëñ ma bëgg a ñaanal ma ma bëgg a ñaanal ma bay na ma ne ko looy liggéey mu ne ma daal ay jàng damay jug di saraxe quoi léegi saraxe yooyu may saraxe daal bëgg na sax ma bay na pour may saraxe. xam nga xam nga foofu yëngu ci teew sadaka li ñu jar bay la joxe sadaka dem sadaka li ñu jar li ñu jar bay la bàyyi laay dee nag bu leen bokk ci ñooñu te di nga jaamu yàlla yonent bi jox nga Aïcha di tari sa ci benn xaalis mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam feebar na feebaram diire na 13 jours am ñuy dee na 14 jours quatrième jour yi moom mooy ba muy waaj a génn ànd ba am 4 jours Aysa nee na boobu yonent bi sonn na feebar bi jàpp na ko sonn lool mu ni Aysa ndax jàkk julli na Aysa ni ko déedéet yow la ñuy xaar mu ni ko andil ma ndox andil ko ndox mu sangu ni ko ñu dem bi muy dem ci yoon wi pour julli ji mu daanu xëm ci yoon bi ñu xëpp ko ndox mu jugaat mais Aysa ndax julli na Aysa ni ko déedéet mu ne ko ñu dem demaar ba ci yoon yi mu daanuwaat demaar ba ci yoon yi mu daanuwaat ñetti yoon ngir lan ngir dem julli ji yow dara jotul dara méttiwul la xoolal yi noonu ngeen teewoon dara muy xëy ko jug pour julli ci ba ci yàgg mu ne Aïcha demal ci Aboubacar yónnee ci Aboubacar nee ko mu def diine boobu soxla la mais bàyyi laay fii bi mu géej bi mag yónnee ci ndëkk yëpp nga fekk ko fi ba muy julli dañ koo lënt bu doxee tuuti taxaw noppalu demaat noppalu demaat deman ba keroog mu des pour lan pour julli si la ni mag yi ku ñu woon adduna réew ki leen jiite ñuy dund ku ko booba macha allah bas yàgg mu ngi mag ñi nag mu am looy joxe dërëm boo xamante ni nii boo rëyoon boo gisoon Mouhamad di ko ko jox def ko sama bopp xanaa xanaa nekk ci waa ji gën àll di la wax loolu xanaa kon na li bëgg xew jamono. ku am dërëm boo xam ni boo rëyoon boo gisee Mouhamad weexaayam nga jox ko ko teg ko sama ëllëg incha allahu incha allahu xanaa boo ñëwee fekk dërëm bi su la ko séddaale moom xanaa di nga xam ne mooy Mouhamad. kon mbokk yi nañu góorgóorlu ci jaamu yàlla moo tax yàlla wàcce téere yi moo tax yàlla yónni yonent yi moo tax yonent yi sonn moo tax gars yu baax yëpp ñëw bàyyaa nee tamit nan xiir ci baax nee na maa ngi leen di xool seen i seen ah bët yi tànk yi yëpp maa ngi leen foo jëm lu mel ni de baax nit amul lu ko gën waaye dem feneen feneen soxna sa bopp la rek doo ko jëlee bàyyi laay nee na lépp luy baax naa bëgg ngeen meloo ci yooyu dafa am ñaari benn jigéen bu nekk ci àll bi dem ba marana xiif sonn fi mu tëddee di jàmbat parce que xiif beeg naan bi ñu koy sonal. mu jékki-jékki si benn jigéen kuy ñëw bi mu ñëwee rek mu ñaan ko di ko ah man kat dama sonn dama xiir dama mar ku jigéen kooku yëkkati ndox jox ko yëkkati lekk jox ko ubbi saagam yëkkati ndox jox ko yëkkati lekk jox ko ndaw si xiifoon mi ngi xool saag bi gis na ci or bi mu lekkee naan ba pare kon ndox soxna doo may or am nañ baadoon doo may or ñaan ko or bi ndaw si jël or bi may ko daal di dem xanaa boo ko gën a baax ndaw si toog toog xel mi yettu toog toog xel mi yettu mu jëlaat or bi di wëraat ndaw si ko nga gis ko di ko soxla si or si mi ngi nii xam nga lu ma bëgg mbaax gi nekk ci yow laa bëgg nga def ko ci man mbaax gi nekk ci yow ba nga ma or bi laa bëgg mbaax kooku laa soxla kon koor bi amul jari kon mbokk yi baax boobu la bàyyi lay soxla la suñu baax boobu la bàyyi lay soxla si ñun ñu ngi te di jégal bu baax lu fi ni ñu xam ni ñun bu ñuy waxtaan kat ah dafa bëgg lu baax rek yàgg naa ni ma Mbale man ñu doon xewle Malika dafay ñëw ànd ak seen gaay la biñ ci waxtaanee ak ma ne ko ñun ay taal bi la ku suñu laay doon dem mënuñu ko de. waaye ñu def suñu kéem tolluwaay kàddan rek kon ñu ngi koy sant di sant dëkk bi ñu teew kilifa yëpp léegi ñaanal yàlla seen dëkk bii yàlla bu mu benn dëkk yàlla yàlla taw ay nii ni yàlla mën na yàlla ko def ñu ngi ziare ñu ngi àndal vraiment ñu ngi àndal ñëpp ñu di ziare ah président Kadal maa fi audiovisuel Cheikh Maguette ñëpp ngi fi gis beneen yoo nag jiim. ak Youssou ak Ilimane parce que tey bu ma amee fit ñëw. bu ma amee fit ñëw tuuti rek booy gàttal. xaaral bu ma amee fit ñëw fii. waaw ci ñoom la ko yàlla jaaral. parce que pour ñu woon toogal du ma ñëw de parce que ñoo fi nekk xam nañ li fi nekk. kon bu ñu nee ba sàmm ne bëgg naa ma ñëw ñoom ñu ni ma ñëwoon di def seen alal di seen bët kon ñoom amal nañu ngërëm li ñuy def ndax ñu leen ko ay borom xam-xam lañu yàlla nañu yàlla fay bu baax sàmm yaakaar naa keroog balaa njëriñ. lépp nga xew teraanga defal nañu ko waaye lépp loo ñu defal yàlla ko rëcc. amiin yàlla na ko yàlla fay. parce que kat ah ah bàyyi laa yemul daana wax ñaar daana wax mag ñaar a ma ñaar ñaar rek a ma xam. ñu yow ma xiyaam ni ma toogee lay sawara dem di ma romb kalaa dem sawara di ma romb. kooku jar naa àndal. kooku ودخل لوحدكم الحمد لله ها نقول رب العالمين سلام نوغا nga commencé sax nga loo si jaan bi jaan bi bu fekkee tax nga day ñëwaat. beneen programme laa ñu wax. kon macha allah ñu ngi leen ñaanal yéen daayira yi daayira bi teew ñëpp ak daayira bi ci dëkk bi lii amul leneen lu ko gën lii amul leneen lu ko gën keneen ku def leneen it seetaan leen fële fii lay muy ci diine loo sàggan nit ki moom boo bañee diine it bu sooba yàlla bala waa ñu génn àdduna di nga bëgg diine lii nag. moo jara ñee nit li ngeen def bu leen ci dara découragé loo bu leen ci dara dara découragé loo jàpp leen téye leen muy taw muy naaj ak lu mu mënti mel téye leen wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ci Seydi